أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونجي أندو نجينتي حياة الصحابة waxtu wi passé ñu ngi doon waxtaanee sahaaba bu tudd Huzayfa Huzayfa ibnul Yamani tey ñoo ngi jël qissatu islaamihi ñu ngi jël dars di wax di fàttali moom Huzayfa naka la duggee ci lislaam mu ne wa kaana alyamaan yastaaqu bayna xiinin wa xiin an yadhaba ila makka li yatuufa bilkaaba moom yamaani bokkoon na ci ay mébétam saa su nekk waxtu nekk muy xalaat mu am ay bëgg-bëgg dem makkatal mukarram ngir tawaaf ci kaaba gi na ko waa jamono ba doon defee kaaba gi du saasi rek du waxtu wii rek la ko nit ñi di wër bi yàlla sàkkee asamaan ak suuf ba léegi malaaka yi tabax kaaba gi ba génération bu ñëw di ko defaraat di ko defaraat ba ci Ibrahim ba fii nu toll kaaba gi jamono ju nekk dañ koy wër moom Huzayfa moom yamaani moom lool moo nekkoon mébétam mu dem ci kaaba gi wër mu ne wa fi yawmin min al ayaam benn bis ci bis yi sami al yamaan bi mab'as nabi axiru zaman fa saala anhu fa ida huwa sadiqu al amin benn bis moom alyamaan yi mu dégg ay xabaar dégg ay wax nit ñi di ko waxtaane ci biir dëkk bi foo toll rek nit ñi di wax xabaar yooyu lan la ñu ne am na benn yonent bu yàlla yónni yonent boobu moom mooy mujjee ñëw ci aaxiru zamaan àdduna buy waaj a jeex yonent boobu la yàlla di yónni yonent boobu ñëw na mu dégg wax jooju mu daal di laaj waaw yéen li ma dégg nag ah nit ñi ne li nga dégg de moo am dégg naa yonent bi mujjee ci àdduna yàlla yónni ko ñëw na mu ne waaw kay ñu ne ko waaw kay mu ne waaw ko kan la fa iza huwa sadiqu l amin muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ndeke mooy ku dëgg ku ñu dëggal ku wóor gi mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazi kaana yaarifuhu nnaas muhammad mi nga xam ne ñépp xamoon nañ ko lu tax nit ñi xamoon ko mooy waa Màkka ñoo ko tudde woon al amin balaa dara di xew ndax xam giñ ko xam wóolu giñ ko wóolu woon wóor gi mu wóoroon moo tax ñépp ko xam kaana yaarifuhu nnaas jamian nit ñëpp xamoon nañ yonent bi bi sidqihi wa amaanatihi falam yataraddad alyamaani lahzata waahid bal aslama bi qalbihi wa jawaarihi lillahi azza wa jal moom yamaani ba mu déggee ñuy joxe xabaar bi yonent ba ñëw na mu laajte kan la ñu ne ko as-saadiqul amin moom moom yamaani sikki sàkkawul xam nga am na nit ñoo xam ne boo déggee ñuy wax dara da nga naan ah ah ndax lii kooku wóor na lan ngay wax am ñoo xam boo déggee ñuy wax dara da nga ah man kooku dégg naa ko mais wóoluwuma ko de kooku wóorul de waaye am na ñoo xam ne boo déggee ñuy wax dara rek da ngay ah kooku dëgg la kooku moom wóolu naa ko kooku moom sa waay xamul caaxaan moo tax yamaani bi mu déggee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni Muhammad mu ne awma sikki sàkka kooku damay dem léegi léegi léegi ma tuub léegi léegi léegi léegi ndeysaan moo tax bi mu demee ci yonent bi di tuub moom tuubul rek tuubu làmmiñ tuubu làmmiñ xam ngeen lan mooy tuubu làmmiñ mooy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nii rek ci kaw nii nii wax ko ci kaw fekk yeggul sa xol moom nag aslama bi qalbihi wa jawaarihi dafa dugal xolam dugal cërin yi yépp a tuub waaw cër yi la tuubloo ndax cër yi rek la tuubloo ah ndax cër yi rek la tuubloo déedéet dafa tuubloo cër yi tuubloo xol bi mu jox ko yàlla wa aada min makka ilal madina mu daal di dellu jóge makka dem midin mu dellu jóge makka delluwaat midin ngir mu yenu leer mu yenoo fa leer leer bu tudd al islaam mu yóbbu ko ci waa këram ila usratihi fa aslamat usratuhu bi mu demee ci këram mu yegg si rek moom melul comme paate yi moom yamaan yi nurawul ak paate yi waaye ñoom bu ñuy julli yi ñoom kese ñooy dem bu ñuy woor ñoom kese bu ñuy def lu baax ñoom kese waa kër gi di def lu bon moom bi mu tuubee jóge màkka ñibbi si këram Madine bi mu ñëwee kër gi yëpp la tuubloo jabar yi doom yi sët yi mbooleem famille bi def leen tuubu kulluha ñoom ñëpp wa aslama huzayfatu ibnul yamani ci la doomam boobu tudd huzayfa daa di tuub kon gis ngeen huzayfa ni mu duggee ci lislaam nan la duggee ci lislaam papaam moo dugg ci diine ñibbi si jóge màkka ñëw Medine daal di tuubloo waa kër gi Huzayfa ci kër gi la bokk mu daal di tuub Huzayfa ci doom yi la bokk mu daal di tuub wa kaana abuhu lyaman yuhaddisuhu kasiran an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fastaaqa Huzayfa li ru'yati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam papaay Huzayfa te mooy alyamaan moom da daan waxtaan ak Huzayfa lu bare bare bari lan moo tax mu daan waxtaan ak moom ndax mooy doom ji nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci doom yi muy waxtaan ak Huzayfa lu bari lan lay wax ak moom mbirum yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam yonent bi alayhi salaatu wa salaam nangam di waxtaan ak Huzayfa lu bari ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yon ba Huzayfa bëgg a gis bëgg xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne hakaza nasaa huzayfa fi baytin muslim nii la huzayfa dundee ci kër goo xam ne kër gi ñëpp jullit lañ gis nga kër suñ bëggee mu baax su kër bëggee baax kër gi da nekk këru jullit kër gi bu nekkee këru jullit rek kër gi baax waaye kër goo xam ne du këru jullit kër googu du baax nit ñoo xam ne duñu ay jullit ñooñu duñu baax Huzayfa nii la dunde ci kër goo xam ne kër gi ñëpp jullit lañ summa raxala bi suxbati waalidihi ila makkata al mukarrama benn bis papaam di tukki di delluwaan màkk Huzayfa daa di ànd ak papaam wa hunaaka iltaqat yamaani bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag foofu nag la Huzayfa gisee yonent bi alayhi salaatu wa salaam allahu akbar mbokk yi foofu la Huzayfa gisee yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofu la dajeeg moom. moom Huzayfa wa hunaka iltaqat yamaan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar bay ah foofu la bàyyi Huzayfa ak Huzayfa ñu dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Huzayfa daal di yee salaat haysu aalat islaamahu mu daal di feeñal nag léegi ngëmam wa sarrat fi nafsihi mu daal di ndeysaan kontaan mu yëg mu yëg kontante moom Xuzayfa ci xolam ndax lan ndax bëgg gu bëri gu mu bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nga xam ne tànnuloo na ko xayyarahu bayna alxijra wa nusra naam xayyarahu bayna an yakuna min almuhajirin aw alansar faxtaara huzayfa an nusra wa aada ila almadinati almunawar allahu akbar yonent bi tànnuloo na ko ne ko huzayfa comme léegi dugg nga ci lislaam nag muhaajir ngay nekk wala waa ansaar ngay nekk mu ne ko man waa ansaar laay nekk te waa ansaar xam ngeen ne ñoo dëkkoon madina wa aada ila al madinatul munawar noonu la huzayfa daal di delloo madinatul munawar mu ne walizalik qaala lahu alhabib sallallahu alayhi wa sallam in shi'ta kunta min al muhajirin wa in shi'ta kunta min al ansar faxtar ahabu al amrayni ila nafsik qaala huzayfatu radiyallahu anhu bal ana ansaari ya rasul allah ndeysaan mbokk yi Huzayfa bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn loowee ne ko léegi nag ñaari mbir yi jël ci benn su la neexee nga nekk ci waa muhaajiriin nekk Makka bu la neexee nga nekk waa ansaar nga nekk Médine seetal ñaar yi bu la ci neex faxtar ahabul amrayni xoolal ñaar yi lu ci gën a neex mu ne yonent bal ana ansaar yi man de ci waa ansaar laa bokk waa ansaar laa tànn yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa lamma azina allahu li nabiyi sallallahu alayhi wa sallam bil hijra fariha huzayfa farhan shadid huzayfa dellu madina nekk madina di liggéeyal yàlla di woote ba benn bis mu dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jóge màkka jëm Médine Huzayfa kontaan lu tax ndax xaritam baa ngi ñëw ndax yonent yàlla baa ngi ñëw ndax soppeem baa ngi ñëw mu kontaan kontaante gu mat sëkk bi yonent bi yegsee wa laazama nabi sallallahu alayhi wa sallam mulaazamat alxabib li xabibi mu ànd ak yonent bi ànd goo xam ne ni xarit di ànde xarit soppe di ànd ak soppe noonu la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Huzayfa lu tax ngir mu mën a naan ngir mu mën a tànq ci tànquwaay bu wér wi ngir mu mën a naan ci ndox mu set mu sell mi ngir mu mën a jël ci njubal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu mën a roy ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax Huzayfa takkoog yonent bi ni xarit di ànde xarit soppe di ànde soppe noonu la Huzayfa takkoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mën a am jikko yonent bi jikko yu rafet yi faqad ahabbahu nabi yonent bi bëgg ko allahu akbar texe na ko yonent bi bëgg rek texe nga yonent bi bëgg ko bëgg koo xam ne hubban jamman mbëggeel gu dëgër gu tar gu sax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon Huzayfa fa kaana annabi bi nazaratin waxid ila ay rajulin yaclamu safa sifaatahu wa imkaanaati wa mazayaahu min awali waxlatin fa axsana annabi sallallahu alayhi wa sallam fa axassa annabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi saa sallam benn xool bu muy xool benn waay mu xam waa ji setam mu xam waa ji ay qualité ak ay mayam yonent bi mu xoolee loolu yépp mu gis loolu yépp mu ngi ci Huzayfa yonent bi yëg ne fa ahassa nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Huzayfa yamliku zakaan yonent bi gis Huzayfa yor na muus goo xam ne yor na yeewute goo xam ne yor na ñor goo xam ne néew na ci nit ñi ku ko am néew na ci nit ñi ku am may googu yenent bi daal di koy jox moom Huzayfa mbir moo xam ne loolu la yellool ci diine ji ngir Huzayfa nekk kuy denc mbóoti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc ay secret yonent bi lu tax ndax yonent bi seet na ko gis na ñor na ñor goo xam ne mu xam ne kii war na mun a am lu mu yor ci liggéey lislaam bi yonent bi ne ko kaay mu daal di ñëw yonent bi def ko secrétaire am daal di koy dénk secret yi mbóot yi mbóot yi secret yi yépp mu daal di daal di koy denc wa kaana alhabib sallallahu alayhi wa sallam yad'u rajulu almanasib fi lmakani almunasab wa yastaxdimu taqaati ashaabihi fi ma yaxdumu diin ala ala almustawa yonent bi saa sallam noonu la daan xoolee saxaaba yi kenn ku nekk mu xool lan mooy capacité am lan mooy qualité am lan mooy xam-xamam fan la toll lan la mën yonent bi daal di koy jël jox ko loolu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da doon liggéeyloo saxaaba yi ci diina yàlla ji te rek ba Aboubacar duggee ci lislaam yonent bi dafa ne lan moo ma war mu ne ko li ma war moo la war lan moo la war mu ne ko li ma war moo la war kon mbokki jullit yi tey loolu moo doon dars bi mooy qissatu islaamihi dars baa ngi noonu dégg ngeen xuzayfa ak baayam yamaani lan mooy histoire am bi mu dugg ci lislaam xuzayfa nan la duggee ci lislaam bu mu duggee ci lislaam yan fonction yan ndomba tànk la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam takkal kon ñoo ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu njuumte yi yàlla may nu jëriñoo ko incha allah kon ku ci am lu mu ci yokk wala lu mu ci laaj suñ kemtalaayal kàttan ñu jëm cee jaaraat asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu